والقلم وما يسطرون xam ngeen ne daara dafa ànd ak taalif daara dafa ànd ak boole alquran daara dafa ànd ak ay mbiri boppam ni nga xamante ne mbind mi mbiri daara la looloo tax animation bu bis bi li ci ëpp ci ay taalif lay jëm waaye bu amaatee leneen lu ci topp mooy ñëw ci boole alquran yi sëñ Omar bismillah alhamdulillahi alladi jaala alqurana dusturan lil muslimin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alxalqi sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yowm ddin uqaddimu hadihi alqasida ila kulli aadaai almajmuca allati tudca biyaatan mbindum alquran majmucatun min fariqin mutaxassisin fi majaali tadris alquran qaamu bihi min tanzimi almusaabaqati alrasmiya كما أتشرف بتقدير الجهود الممتازة التي بذلها الحاج سرين سك خدمة لكتاب الله تبارك وتعالى ماذا أقول لمن للرسم أعوان شرفتم فنه فالرسم أركان قد كان مختفيا بل كان منطمسا عن بعد محضرة ما ذاك بهتان lawlaakumu gaaba anna rasmu mundasiran abqaytumu tibqa ma abdaahu usmaanu lawlaakumu lam takun lirrasmi amidatun jaddattumuuha fa shaaca arrasmu yazdaanu injaazukum mufrixun ajdaadana faraxan min himmatin zaanaha sidqun wa ixsaanu merci bila adadin shukran lakum abadan akramtumu nafaran tarwihi azmaanu xaqaqtumu munyatan dallat lada ufuqin min qablikum man madaw lil xayri alwaanu min ajlikum juddidat athaaru man sabaqu birrasmi walxifdi maa fi lficli tugyaanu min ajlikum yartaqi rasmun lada mudunin xubban liman katabu fi lficli burhaanu maatam ziguinchooru kolda séeju xat xadaru raneeru bàkkel jolof kadaaka njaasaanu shukran lahum juhduhum mustaxsanun alanan bushra lahum xirsuhum yubdihi shubbaanu sëriñu sekk hëmmuhu ixyaau ma wurisat min xiiratin sabaqu lil xayri sëriñu sekk hëmmuhu ixyaau ma wurithat min xiiratin sabaqu lirrasmi ayaanu tawsiicuhu himmatun min himmatin uxidat min walidin aslahu alaahu qur'aanu ish tayiban saaliman min kulli mahlakatin yaa man bihi yartaqi fi rrasmi xilmaanu yaa rabbi salli ala almuxtaari sayidina xayril wara nasaban man asluhu adnaanu wasalaamualeykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi barakaatu bismillahi rahmaani rahim noo ngi nuyoo tey ziyaara di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi xanaa ci tënk rek ñu sargal bokk yi nga xam ne ñoo doon taxawu lii li ci jiital alxaaji sëriñ Seck di leen ñaanal sunu boroom mu gën leen a sàmm te gën leen a taxawu ba ñu gën a a gunge alxuraan bu baax gën a mën gunge daara yi bu baax a baax bismillahi arrahmani irahim yow téere yàlla bi yow tegtal bi yow wile lay yow gindi waa kon bi wom sépp cam solo ngoy yow téere yàlla bi yow tegtal yow wile way yow gindi jam cam solongo yi yaa ëmb yërmande yaa yor saafaraas ku tawat yaa saytu pas-pas yi yaay jubbanti képp ku joy ku ngëb ci yow ngëb na buum yàlla yaa gën a wér doo bu ñuy raw ci fàllay mbaa aciiti gara yi sa ngir amul pakk baa ay sil ku sóobu ci yow du sanku dég du ko jam baaxal nga sang yëwey yaa yor njubug maas ga teew ak maas ga fii nar a ñëw yaa yor njubug maas jàlloon waa ju xam du la mooy yaa yor njubug maas ga teew ñëw yaa yor njubug maas ga jàlloon waa ju xam du la mooy yaay làmp yaay jant bu ñu fenkal ci jaww wi lëndëm yaa gindi mboolem ñereeroon démb yaa jaraway yow alxuraan yaay làmp yaay jant buñ fenkal ci jëw wi la ndëm yaa gindi mboolem ñëyeroon démb yaa jaraway yaa nuy xamal la dagan yaa nuy xamal lañu ñu yaa nuy xamal lay xaraam ak lépp luy juru ay yaa xuppe yaa bégle yaay waaraate lëm nga njariñ gàcceel nga tawreetu ak lin jiilu yaa matoro yi nga tawreetu ak lin jiilu yaa matoro nga max naa yu xel dul dab xalam du ko jot sa ndox mu neex meenu màndal noo ngi baaw a ko duy seetal ña daa yëjj kay duur ak ña daa sa sinar géem nañ bu yàgg te yow ngay gën di jolli ba tey yow alxuraan seetal ña daa yëjj kay duur ak su sinar géem nañ bu yàgg yow ngay gën di jolli ba tey yaa not waliidu te yaa luum loo musaylimatun yaa toox aboo jëhli nag àndam ya xëy nañu fay yow alxuraan yaa not waliidu te yaa loolu loo musaylimatun yaa tax aboo jëli nag àndam ya xëy nañu fay teral nga usmaanu ci maasam teral nga ali yaa tax ña toppoon rasulullahi fonk ubay dima sa xam nañ aboo darda fóoreje woon giñ yaa yor taraangay sépp cam sula sabarke bee tax ba réew mi raw na réewi ajam yaa tax ba Cheikh Omarul Fuuti turam wadu fay yaa tax ba Maodo ki maasam mel ni weeri Badar yaa tax ña seen yaa ki njaasaan seeni mbir gën a xëy jàmmal nga jaamal teral ñooñ pir te dotti nga yiw ci soofi kokki fasal ay ndënd jàmmal nga jaamal teral ñooñ pir te dotti nga yiw ci suufi kokki fësal ay ndënd yu dëkk bay sabarke bee topp sëñ Tuubaa te yaa ko defal jagleem gurey gile ay waamem yi gétti ma say yow alxuraan yow alxuraan yaa defan wéttal wa yow la faboon ba dem gabon del si ànd ak ay ngëneel a ki may ci yow la xalaate ngirum yàlla bam ne fa yàq defar ci Iisaa ki bàllaak Seexu Aadama Géey ci alxuraan ji la daanee noonu yàlla bu wér xëy samp tuubaa jëneerub diine bay gën a boy yow téere yàlla bi yàlla mboolu defi mu bét barkeel nga barkeel nga jaajug yàlla dooma sa dey allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa بنعمة ربك بمجنون